la je vous remercie de, nous retrouver encore ici dans notre chère commune de Grand euh, Je voudrais donc vous remercier pour votre présence. Je voudrais m'entretenir avec vous de la situation nationale désolante qui propulsé de la manière la plus regrettable notre cher pays sur la scène internationale. Notre pays, autrefois îlot de stabilité et de paix, fait aujourd'hui la une de tous les organes de presse et dans toutes les parties du monde, avec l'image hideuse de Nervi tirant sur les manifestants. Les vidéos ont fait le tour du monde et des chaînes internationales ont démontré les connexions de ces milices avec euh, des forces officielles, ce qui nous a valu la perte de 16 vies humaines, selon le ministère de l'Intérieur, et 23 vies perdues, selon Amnesty International. Qui aurait pu imaginer que notre pays en arriverait? J'accuse le président Macky Sall d'avoir ruiné la réputation de notre pays dans l'obsession de vouloir faire un troisième mandat illégitime et moralement inacceptable. Cette obsession est la mère de c'est-à-dire le bâillonnement de la presse et la répression sauvage des manifestants. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, celui des forces armées et le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Justice, sans la moindre compassion pour ces vies fauchées dans la force de l'âge, ont fait face au Sénégalais avec une arrogance inouïe en parlant de fanfaronnade quand tout le monde réclame la poursuite des auteurs et commanditaires des tueries de nos jeunes compatriotes. Il nous parle à nouveau de forces occultes convoyées par des pick-up clairement identifiés qui réussissent à tuer au nez et à la barbe de notre police et de notre gendarmerie dont le professionnalisme était pourtant vanté dans le monde entier. Comment peut-on, peut-il exhiber des images de nervis qui tirent sur les populations sans être capable de les arrêter? D'où viennent ces pick-up blanches stationnées devant le siège du parti du président de la République à bord desquels ces sinistres individus sont montés, tels que, tout cas, l'ont montré des médias internationaux de renommée. Mesdames, Messieurs, si ces ministres ne peuvent pas élucider ces questions, ils doivent tout simplement démissionner. Le Premier ministre, le Premier ministre en tête, lui d'ailleurs qui a choisi comme terme de sa primature la primature du grand silence. Le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, ils doivent tous répondre de leur incompétence, de leur incompétence notoire à protéger les citoyens et leurs biens. Nous avons entendu avec effarement des responsables politiques de la coalition du président assumer la présence de ces milices auprès des forces de sécurité. Mais dans quel pays sommes-nous? En tant que citoyenne et responsable politique, j'ai mal et j'ai honte quand j'ai vu ces reportages de la presse internationale démontrer la connexion politique très claire de ces nervis et leur proximité avec les forces de sécurité officielles. Aucune explication venant de la brochette de ministres poussés au front euh, de la communication, certainement malgré eux, par leur patron, le président Macky Sall. Pourquoi donc aucune plainte n'est déposée contre ces médias à continuer courageusement à faire votre métier d'information malgré le courant de répression en cours car le président de la République ne pourra quand même pas fermer toutes les télés et toutes les radios. J'encourage aussi les médias qui émettent en ligne, qui aujourd'hui d'ailleurs permettent à beaucoup de citoyens euh, d'être informés. Mesdames, Messieurs les journalistes, j'interpelle tout particulièrement Maître Sidiki Kaba. ancien militant international des droits de l'homme, dans la défense des droits de l'homme la section d'Amnesty International en 1979. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Il y a 43 président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme pendant 6 ans, de 2001 à 2007. Monsieur le ministre, au-delà de votre responsabilité, puisque en charge, la question que je voudrais vous poser, c'est comment dormez-vous tous les soirs avec votre conscience d'ancien défenseur des droits humains Vous qui, pendant plus de quatre décennies, vous êtes fait l'avocat des victimes, des victimes de toutes sortes de barbaries, démissionner sans délai, monsieur le ministre, avec vos collègues, car le gouvernement que vous défendez aujourd'hui perpètre les mêmes violations contre lesquelles vous vous êtes battu pendant plus de 40 ans. Monsieur le ministre, aucun poste, aucun privilège ne vaut un tel renoncement. À monsieur le ministre de la Justice, je m'étais dit lors d'une de vos sorties, il n'y avait plus sujet à, à, à, discuter avec vous. Vous aviez dit que toutes ces questions n'étaient plus juridiques, qu'elles étaient politiques. J'ai vu que vous êtes revenu dans le chemin du droit, qui est quand même votre métier. Mais je voudrais juste vous interpeller, vous, pour que vous arrêtiez de harasser vraiment de ce harcèlement en direction des travailleurs de la justice qui ont le droit certains travailleurs qui ont le droit de faire de la politique. Leur statut ne leur interdit pas arrêter ces affectations euh, à politique. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Pour revenir à, monsieur, à Maître Kaba, comme vous le savez, le Sénégal a déposé son instrument de ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 18 juillet 1998, étant ainsi le premier État signataire. La Cour pénale internationale, comme vous le savez, a donc compétence à l'égard des crimes visés par le statut de Rome commis sur le territoire de la République du Sénégal ou par ses ressortissants. L'examen préliminaire de la situation pourra être déclenché par le procureur après dépôt de la plainte et des éléments de preuve réunis avec l'aide des organisations de défense des droits de l'homme. Le bureau du procureur de la CPI pourra enquêter pour s'assurer que les autorités sénégalaises n'ont pris les mesures nécessaires pour établir les responsabilités des auteurs et des commanditaires des crimes présumés. Malgré l'empressement a déclaré qu'il y aurait une enquête, c'est pour cette fin-là. Mais puisque le gouvernement ne prend pas jusqu'à présent des mesures sérieuses en vue d'élucider, vu que les autorités sénégalaises sont inactives, réticentes et n'ont les raisons que j'ai aucune volonté politique d'initier véritablement des enquêtes et des poursuites, notre conviction c'est que la Cour pénale internationale pourra valablement se substituer à nos juridictions défaillantes, et ceci pour éviter l'impunité des auteurs et de ces violations du statut de Rome, dont je rappelle, notre pays est le premier État signataire. Euh, Maître Kaba, je m'adresse aux spécialistes, aux militants des droits de l'homme. Vous connaissez bien le cas du Kenya où son président avait fait l'objet de poursuites et de mandats d'arrêt pour un nombre de victimes, morts et blessés compris, moindre que ce que nous avons ici depuis 2020. En somme, mesdames, messieurs, la communication de ces ministres sapeurs-pompiers, essayant d'éteindre la clameur nationale, mais surtout la clameur internationale, cette communication cache mal une angoisse généralisée et une peur des lendemains à venir, car nos enfants tués ne passeront jamais pour perte et profit. Les auteurs et commanditaires de ces crimes répondront devant la justice tôt ou tard. Déjà, que le nom du Sénégal puisse être associé à une saisine de la Cour pénale internationale est en soi une régression démocratique doublée d'une honte infinie pour tous ceux qui se sont battus et continuent à se battre pour les libertés démocratiques. Et je voudrais ici rendre hommage à l'héroïsme de notre jeunesse qui paye un lourd tribut à cette lutte. Leur sacrifice ne sera pas vain car la liberté et la justice sont inscrites dans la destinée du peuple sénégalais qui a toujours fait face à la tyrannie et depuis la nuit des temps. J'invite aussi ici nos forces de défense et de sécurité à refuser catégoriquement de rentrer politiciens. Vous êtes nos FDS, nous, les citoyens, et vous avez fait notre fierté depuis toujours en vous mettant au-dessus du jeu politique. Aussi, je vous conjure à défendre vaille que vaille votre posture et honneur républicain, car vous êtes nos enfants, nos époux, nos parents, et les régimes politiques passent et nous resterons toujours ensemble. J'interpelle le président Macky Sall et l'appelle à un ultime sursaut, un ultime sursaut pour que ce pays qu'il a dirigé, suite à l'aboutissement processus démocratique, que ce pays-là ne finisse pas dans le chaos et le désordre. Le 25 juin, puisqu'il s'est décidé de parler ce jour-là, qu'il annonce qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle de février 2024. qu'il laisse tous les candidats, tous les candidats concourir, concourir librement en suspendant toutes ces procédures judiciaires tendant à éliminer des adversaires. Qu'il libère tous les jeunes détenus pour des raisons politiques. Qu'il laisse la presse travailler librement. Et qu'il fasse sans délai, je dis bien sans délai, la lumière sur la tuerie de nos enfants. La vie de nos enfants tués était tout aussi précieuse que celle des enfants ukrainiens pour lesquels le président Macky Sall a tenu hier ou avant-hier une bougie. C'est ici au Sénégal, Monsieur le Président de la République, que nous attendons que vous régliez la situation déjà désastreuse de notre pays. Le

pas une seconde de reporter les élections. Nous avons entendu votre porte-parole dire jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, l'élection présidentielle se tiendra le, au mois de février 2024. Aucun dialogue, aucune conclusion ne pourrait retarder le calendrier, des, le calendrier électoral. maa ngi leen di euh, nuyu tey dama bëggoon a waxtaan ak euh, yéen ci réew mi réewu Sénégal wi nga xam ne wii fu ne ñu ngi koy tudd tey ci àddina bi Sénégal ku ko xamoon xam ne dëkk jàmm la woon ak dëkku stabilité fii ci Afrique waaye tey ñu ngi koy tuddee ci anam yoo xam ne neexul benn Sénégal amul télévision boo dul ubbi ba ci Japon ba ci Cambodge bu nu dul wax waxu Sénégal yàlla daf nu mayoon nu doon dëkk boo ne xëy na sunu koom-koom tolluwul ni dëkk yi nga xam ne dëkk yu mag lañu sunu population yaatuwul noonu ndax 17 18 million dong lañu waaye suñu tur macha allah ndax suñu tradition de paix suñu stabilité. àggoon na fu sore sore sore sore tey président Macky Sall ci bëgg bi mu bëgg troisième mandat ndax loolooy ndeyu mbili gi looloo indi problème yépp tax na ba turu Sénégal vraiment gàkkal nañu ko image du Sénégal gàkkal nañu ko surtout bi ñu gisee ñi ñu tuddee nervi yi nervi nag du dara lu dul ay sambabo yi yoo xam ne dañu yore ay gànnaay di rey ay xale yoo xam ne dañuy manifester télévision yu mag yi wane nañ ko fu nekk gis ñuy wàcc ci ay pick yu weex pick yu weex yoo xam ne gis nañ ko mu gaare ci siège du parti président loolu télévision yu mag yooyu ñoo ko wane mu wër Sénégal yépp ba fukki bakkan ak juróom benn ci li ministre de l' l'intérieur wàññi Amnesty International ne ñaar fukki bakkan ak ñett rot image yooyu def tuuru Sénégal kon président Macky Sall gàkkal nga image yu Sénégal ndax lii du Sénégal bëgg troisième mandat nag mooy di li ay manifestation suñu doom yi ñu leen di boobu bëgg a éliminer ay candidats jaarale ko ci justice presse bi aussi ñu sonal leen ba ci tëj ay station de télé nga yebal say ministre xam naa ne sax da leen di yebal da nga leen a puus ndax premier ministre moom duñ koy faral di dégg moom la mu jàpp ne primature mooy da ngay noppi ne ci yàlla rek primature u Thiel daal moom la jële waaye xam naa bii moom dana naan yow mii fa nga dem taxaw nag wax wax jam lam ca wax sax waaye boolewuñu ci sax benn yërmande ca nañ doon waxee benn yërmande ay xale yoo xam ne ñun ñii suñu ay maramu doom lañu pour ñenn ñi mu mat leen sët xale yi lor seen bakkan nañu doon waxee vraiment li ñuy xaar ci ñoom ak ci président de la république mooy d'abord ñu massawu famille yi nga xam ne seeni doom loru nañ ci ñàkk nañ ci seen bakkan waaye ba ñuy wax am na ci ay waxu tubaab fanfaronnaan maanaam ñi tudd yi dañoo bëgg a wanewu rek waaye ñi tudd yi lañu bëgg mooy ñi lu xale yi ak ñi leen rey ñu andi leen ci kanamu yoon kon am na nooy waxee rek sax ci question yooyu war nga cee boole tuuti tuuti yërmande ndax famille yu bari tey ci tiis la ñu nekk ci gone yooyu nga xam ne seeni waajur amoon nañ ci ñoom yaakaar tey ñu boom leen ñoom nag ba ñuy waxtaan wax nañ ay force occulte kooku boo koy faram-fàccee ci wolof mooy maanaam ay sàmba yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge jogoon nañ jotoon nañ ko wax nag 2020 li ma ci jaaxal mooy bu fekkee ne da ngay wax yi wax sàmba yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñetti at mënoo leen a gis mënoo leen jàpp xamoo fu ñu nekk kon ñooñu matewuñu li ñu leen dénk kon ku ne rek war ngaa tiit ci sa ku ne war ngaa tiit ci sa kër ngay tudd ay force occulte boobu ba tey télévision àddina bi wane leen gis ay oto yu weex yu gaare ca buntu parti bu président la république gis leen ñuy yéeg ci ay camion ne ci weti ay force de l'ordre te kenn mënu leen arrêté kon ñooñoo nga xam ne moom la ñu dénk suñu sécurité war nañoo tekki seen ndomb tànk ka leen jiite des premiers ministres teg ko ci suuf ñu ut ñoo xam ne ñii mën nañu assurer mën nañu assurer kaaraange war nañu mën a assurer kaaraange wu Sénégal li nga xam ne nag mooy mooy li ci nekk mooy ñu ci bëri ci sénégalais yi muy fii ci diaspora bi ñoom it dama leen di saluer ci seen taxawaay fu ne manifesté nañ ko fu ne fu ne manifesté nañ ko lu ne ñu ngi koy def te pourtant ñoom ña nga ca fa ñu ne di daan seen doole bëgg lu baax pour seen réew bëgg aussi seen réputation réew réputation bi nga xam ne président Macky Sall gàkkal na ko ndax lii yépp ni ma ko waxee bëgg troisième mandat moo ko indi kon ñun ñépp vraiment am nañu kersa bi nu gisee vidéo yooyu nga xam ne presse internationale bi moo ko wane waaw bu fekkee ne du dëgg lu ñuy xaar pour porter leen plainte xam nañ ñu ñu tudd xam nañ fi ñu ne nañ leen porter plainte waaye porter leen bi yéen ñii nga xam ne ñun ñii ñoo bokk nekk Sénégal moo gën a yomb ak i tëj télévision kon presse sénégalaise journaliste sénégalais ba ci presse en ligne bi maa ngi leen di encourager ngeen continuer doon ay jàmbaar ci lii ngeen di def parce que sunu constitution daf ñu may droit leen l'information ci yéen lay jaar ngeen dékku lii nga xam ne nag moom la ñu gis tey mooy xoqatal presse xoqatal opposant xoqatal manifestant ñu ngi leen di encourager di encourager groupe Walfadjri bi nga xam ne tëj nañ ko sax moom parce que nag président Macky Sall mënta tëj télé yëpp mënta tëj rajo yëpp mënta tere aussi jéem na ko sax internet bi ñu bloqué ko loolu kenn mus koo gis ci pays boo xam ne bi démocratie fi nekkoon 2011 def nañ fi opposition ba président Abdoulaye Wade jóge fi kenn mësta coupé internet mësta coupé wuñ internet coupé wuñ téléphone arrêté wuñ journaliste ki nga xam ne nag moom bëgg naa ko tudd aussi ci mbir mi te toogoon foofa ca seen conférence de presse bi nga xam ne moom dañ leen dañ leen koo ordonné ñu ci bëri sax moom xam naa ba dem moom daanaka di woon ci seen coobare bopp waaye seen patron moom moo leen ne ay cale aco ko waxee président premier ministre du ngeen ko yéen yi lu ngeen di jàkkaarloo gën a rek mu gën a kile ba kenn du ko remarqué ba ñu naan premier ministre am na Sénégal moom boobu mooy style bii xam naa patron daf ko ne ay ci ki nga xam ne moom laa ciy tudd nag muy maître Sidiki Kaba li tax ma koy tudd moom dafa doonoon ab jàmbaar ci défense des droits de l'homme ba muy bokk Amnesty International ñu bari ci yéen juddoogu leen ndax 1979 la woon ñeent fukki at ak ñett ci ginnaaw mu jiite woon fédération internationale des ligues des droits de l'homme juróom-benn at kon kooku xam nga ne taxawaayam ci droits de l'homme kenn naa taable wu ba ñu dénkoon ko kuréel international bu mag boobu kon ma koy laaj maître Sidiki Kaba du ma ne sax le ministre waaw boo tëddeeg sa njaganaay sa xel wala sa conviction du lay lay këpp këpp këpp nga jógaat toog yow mi nga xam ne lii ñuy jooy xeex nga ko ci àddina bi yëpp lu ëpp ñeent fukki at poste jaru ko position jaru ko alal jaru ko man de bu ma doon yow danaa teg lépp foofu xalaat la nga xam ne moom laa doon laa dédié woon sama àddina yépp muy xeex violation des droits de l'homme gouvernement bii nga bokk tey ci violation flagrante des droits de l'homme la nekk loolu alal jaru ko poste jaru ko privilège jaru ko monsieur le ministre de la justice bàyyi ñii ngay xoqatal sa personnel bi nekk justice am na ñu ci ànd ak yow am na ñu ci àndul ak yow seen position may na leen ñu politique parce que droit constitutionnel la maa ngi ci avec te benn xale te am am na wuñ ko rek dans une zone neutre ah, buñ ko yóbbu woon kaw euh, lañ ko yóbbu am na signification bàyyil xale yi ngay xoqatal bàyyi leen ñu def seen liggéey tant que amul loo ko reproché ci wàllu liggéeyam bàyyi leen ci seen place du première fois ma nekk naa ministre de la justice am ay désaccord ak magistrat am désaccord ak ak ay personnel judiciaire waaye du noonu lañ koy faje régime jaay doole bi ñu nekk loolu kenn du kenn du ko nangu monsieur le président de la république jël ngeen seen conférence de presse bi ne waaw ñuy wax affaire u yii dañuy wanewu rek nit dangay ànd ak yërmande ci sa ci say kàddu ñuy wax CPI li nu bëgg mooy xale yi nga xam ne boom nañ leen yéen ngeen ne fukk ak juróom-benn la ñu ne ñaar fukk ak ñett la ñu xam ñana leen boom ak kan moo santaane action yoo xam ne ci lañ ñàkkee seen bakkan kon loolu boo ciy wax da ciy ànd ak dal. ànd ceeg yërmande xam ne moment bi ngay wax am na ndey ñu ñàkk seen doom ak i bàyyi ñu ñàkk seen doom ak i mag ak rakk ñoo xam ne ba tey ñu ngi ci tiis CPI ñuy tudd Sénégal di tudd CPI rek gàcce la Sénégal moo njëkk a signé li naan statut de Rome dëkk yi cent quatre-vingt-quatorze dëkk lañu Sénégal moo njëkk a jóg signé statut de Rome bu cour pénal international fa la ñu yóbbu woon ñi dul suivre droit ñoom it Gbagbo ñoom seen ñoom Milosevic ñi nga xam ne ñoo jàmbarloo woon ak seeni sit concitoyen di leen rey Sénégal njëkk a traité boobu ngeen ne ñuy wax dañuy wax rek waaye ñu tudd Sénégal tudd ces pays rek déjà gàcce la ba noppi nag li CPI la lañu ca wax statut yi ngeen wax mooy dëkk ba ñaawteef ya amee maanaam xale yi ñu rey bu gouvernement ba jëlul matuwaay yi pour ñu xam ñana leen rey ak ñana santaane procureur bu yi war naa mën a jóg soldalam def enquête dal di wax ñi nga xam ne ñoom lañu war a jàpp pour loolu moo tax ngeen dégg Sénégal ñu ne bëri rek ñu ne dinañ enquête waaye enquête du wax rek enquête danga koy jëf enquête indépendante lañ lañu wax te tegagu leen ci benn jéego kon bi ñuy wax te militant droit de l'homme yi di dajale preuve yi war nañ mën a am plainte yoo xam ne yi procureur bi day ñëw def enquête loolu mooy li statut de xam nañu ko sénégalais yi aussi ñu xame ko noonu parce que tegagu leen seen gouvernement tegagul benn jéego loolu am na solo gaaw ngeen nag pour jàpp manifestant ak yéen ñi seen euh, journaliste yi waaye ci li ngeen gaawul moo a jaaxal mille milliards Covid yi ba tey benn empressement amu ci waaye xale ba bind ci page Facebook ak ne d'accord ma ak nangam nangam mën ngeen a dem ba ca ron lalu yaayam ne ko fa yóbbu waaye ne naa leen mille milliards yi du gaaw du gaaw ndax ka ca biir premier premier goro de la république kooku moom mbiram du dinañ annoncé rek mooy lii ngeen wax enquête su ngeen ci jëlul ay jéego yu sérieux procureur de la CPI am na capacité pour wara mën a autosaisir ñëw ñu seet fii ñan ñoo leen ko sant nag ndax image yi leer nañu naan nang du ay wax rek de 2021 loolu la loolu la loolu la maître Sidiki Kaba waxoon ana enquête 2021 bi du ay ay ay am na ñu ci de da ngeen a gis résultat wu enquête ba ba tey bii yoon nag du du du demee noonu bii yoon dañuy boole ñi nga xam ne boobu nañ leen deux mille vingt et un ak ñii nga xam ne deux mille vingt su ngeen ci jëlul ay jéego le procureur va s'autosaisir xam ngeen loolu Sidiki Kaba qui est un militant des droits de l'homme qui connaît très bien le statut de Rome xam na loolu ndax Kenya président ba fa newoon ci ay tolof tolof politique. ay nit dee ci la ca dee ak la ca gaañu boo ko xaymaa li dee fii ak gaañu fi moo ëpp kon bu mënee intervenir foofu war naa mën a intervenir fii ñoom xam nañ ko bu baax booy seet ña ngay wax rek parce que foog ñu am lu ñu lu ñu teg ci loxo international bi ndax fan yi gis nañu ne Sénégal fu ne fu ne fu ne fu ne baat yëkkatiku na fa pour ñaawlu li fi xew dëkk yoo xam ne ñun ñoo leen doon conseillé ñëwal ba dëkku tey ñoom ñoo ñuy yedd ñooy yedd président waaye ñun sénégalais parce que ñun li ñu war a def ñu ngi koy def mooy défendre suñu démocratie xale yi dama leen di rendre hommage ndax ñoom ñoo ci ñoo ci gaañ ñoom ñoo ci loolu waaye Sénégal nag ba muy Sénégal dëkk kat la woon te jigéen ñi mosuñoo des ginnaaw non plus. président Macky Sall mënoo noo xoqatal ñun 17 millions sénégalais yi ba imposé ñu loo xam ne warooñu ñu ko imposé kon communication boobu communication buy tiitaange la parce que xam nañu seeni responsabilité tiitaange ci nekk loolu war nañ koo xam bu baax a baax a baax a baax lii yëpp nag li ko lal mooy li ma wax mooy président Macky Sall bëgg troisième mandat. troisième mandat boo xam ne bii jaral na ko lu ne nag waaye ñu nit défendre suñuy droit jaral nañu lu ne lu ne jël justice yëkkati ko ah ba tey yaa nga bloqué Ousmane Sonko këram ban ci ban texte de loi lañ ko teg ñu ngi dégg Ismaïla Madior moom ne woon ne defatul droit politique lay def ba mu ñàkkee argument ba te daf ne waaw waaw waaw finalement sax politique la ñuy def kon politique la ñu bloqué voilà Ousmane Sonko ca këram ci politique ngeen bokkatee suma mandat ci politique lañuy ñuy la ñuy lañ leen di dàqee yéen journalistes yi yéen xam ngeen ne tëddatu leen ba yandoor yéen ñii xam ngeen loolu benn journaliste tëddatul ba yandoor yéen a ngi xool est moo bii sax moom waaw du article quatre-vingt nag loolu kañ la ma loolu lii ma leen di wax xam ne ba ci ab greffier bu bokk ci parti droit constitutionnel may na ko Ismaïla Madior ne ko ay ca demal Matam yóbbu ko Matam par hasard Matam foofu ñoom 80 pour cent la ñuy gagné bàyyil xale yi Ismaïla yi ngay xoqatal président Macky Sall bàyyil jaay doole bi nga ñuy jaay président Ablaye Wade bu la topp. président Abdoulaye bu defoon nii ngay defee kon doo mës a doon président de la république loolu du ma tàyyi ci di la ko fàtte doo ko mës doon dalaa woo fii ci benn tàkkusaan nga wuy ji commissariat bu doon yow bu doon suñu yoon yàlla yi tey commissariat présentation devant le juge mandat de dépôt ndax loolu léegi moom la ñu gis kon doo éligible kon da nga arrêté li nga xam ne vraiment lu rafetul la ci démocratie waaye lu rafetul ci président de la république ci boppam li ñuy xaar ci moom nag le 25 ndax nee na dana wax le 25 mooy mu commencé par demande affaire troisième mandat teg naa ko ci suuf am nga yoon sax comme danga nga mës wax nii wii nii non da ngay la ngaa mucc rek ne lu ma def bu ko defee sa gaa ñi génn sa gaa ñi sa gaa génn ne way président musut wax ne dina ko def nangam nangam et cetera. te ñoom nag li ma jaaxal bu yëf yi tàngee doo ci dégg kenn bu yëf yi cell nag ñoom ñëpp ñu dal di génn nag nga ne teg naa lii ci suuf troisième nga jël sa procédure judiciaire yi yëpp teg ko ci suuf ndax fii mënuñoo convaincre kenn muy Sénégal à l'extérieur que poursuite yi du poursuite pour éliminer ay candidats kenn amul benn conviction nga teg ko ci suuf ne candidat yépp dem leen ngeen wax ak Sénégal yi ku ne wax ak sa programme yow boo bokkulee rek sénégalais yi dal di déglu nga fexe ba wax dëgg yàlla suñu xale yi bac baa ngi jege si nga libéré leen ña doon apprenti ña yore woon seeni seeni seeni boutique mbagg mais seen place du ci prison ñu ngi ci euh, xayma presque plus de six cent jeunes ma ne au nom de ñu ngi lay ñaan nga bàyyi leen presse bi it nga bale leen bàyyi leen tranquille ñu def seen liggéey ñu ñaan la ko mooy ko ñu ñaan la ko ci njëkk boobu président ñaan na ci njëkk troisième mandat bi teg ko ci suuf monsieur le président ñaan na la ci njëkk nga jël procédure yi teg ko ci suuf monsieur le président ñaan nañ la ci njëkk nga bàyyi presse bi mu liggéey ñaan nañ la ci njëkk nga libéré xale yi monsieur le président xalaatuñu nag ngay reporter élection kooku kenn xalaatu ko waaw nag day am fu mu yegg kenn xalaatu calendrier constitutionnel bi Sénégal bi Sénégal kenn mësta reporter ay élection présidentielle lu mësuta am nag bari na lu muy am ci jamono yi kon loolu lañuy xaar ci yow le 25 juin bu ko defee Sénégal delluwaat ca nañu ko xame woon muy dëkku jàmm dëkku stabilité réew mi nga xam ne yow da jaar ci processus démocratique ba mu tegu ci say loxo nga fexe ba réew moomu du tas nga fexe ba réew moomu ña fa dëkk muy ñun ñii duñu tiit ndax kenn nelawatul ba yendoo wax naa ko sax say ministre di waxi neer bi depuis deux mille vingt ñu ngi waxi neer bi ne leen a gis muñ leen a jàpp ñooñu moom mënuñoo assurer suñu kaaraange kooku c'est pas ñoo ñu dañoo war a tekki seen doomu tànk kon monsieur le président de la république pour terminer ñu ngi la gis fële ca Ukraine nga yore ab sondeel pourtant day suñu gone yi ñàkk seen bakkan ñun ñi seeni day day juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti lañ leen ëmb ñi waa Ukraine ña leen seen nii yaay bëggee foofu noonu noonu la bëggee suñu doom yi ñu boom fii waroon ngeen waroon nga leen yëkkatil sondeel fii de balaa ngaa dem ko priorité bi fii la Sénégal ndax dëgg yàlla boo demee di àtte foofa duñ la ko wax ko xalaat ah, kii moom réew mu naan ñun lay àtte si bii te moo àtte boppam foofa duñu la ko wax nag ndax ab président président de la république nga lay jox cër jox nga tappi waaye ñoom ñëpp tubaab yépp loolu ñuy xalaat ne ñëwal nga lijjanti fii Sénégal fexe ma réew mi nga xam ne joxoon nañ la ko ci anam yu sedd yu tedd yow nga bàyyi réew mi ci loxo yi nga xam ne ñoom la sénégalais yi tànn pour ñu jiite leen ñi nga xam ne nag ñoo def ñaaw tey fii parce que loolu kenn du ko musa baal kenn diggante fukk ak juróom benn ba ñaar fukk ñett loolu ñàkk ci seen bakkan ñooñu moom na nga teg commission d'enquête indépendante ñu xam ña ñana def ñaawteef yooyu ak ñana leen ko sant que le président de la république boo bëggee jàmm feuille mu ngi noonu kon ña bi nga xam ne dialogue ngeen ba pare yàgg na ñëpp waaye boobu ñu jox leen loolu comme yóbbal bu ko defee sunu réew mi sunu réewu Sénégal génn ci situation bi nga xam ne ñépp ñaawlu nañ sunuy xarit suñuy noon it <laughs> di ndax Sénégal dafa yàgg doon exception monsieur le président foofu nag yoreel nga ñu fa àq wax dëgg yàlla Sénégal nekk à la une de tout la presse internationale amul journal booy ubbi yàlla dafa defoon may liggéey Nations Unies donc bari na ay xarit ci àddina bi yëpp am na ku ne Cambodge foog nga xool sax ci dictionnaire bi Cambodge fan la ci biir asi bu ma yónnee ne waa mais Aminata Touré what's going on in your country Cambodge loolu nag yaa ñu ko yóbbee loolu yëpp sa bëgg troisième mandat bi nga xam ne waroo ko bëgg monsieur le président moo indi lii yëpp kon tegal lépp ci suuf le 25 juin loolu ñuy xaar ci yow bàyyi justice bi bàyyi xale yi ñuy xoqatal bàyyi journaliste yi ñuy xoqatal libéré xale yi ñu dem ci élection libre transparent et accessible. Merci Madame la Présidente du Mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance, Madame Aminata Touré euh, maintenant, nous allons procéder au jeu de questions-réponses. S'il y a des journalistes qui aimeraient poser des questions, est-ce que am na ci ñi nga xam ni ñoo koy tudd boobaat léegi ci réew mi ak beneen situation donnée bu ci muy délocalisation des bureaux de vote Allez-y, madame. C'est bon. Bonsoir, madame la présidente. Euh, je m'appelle Fatou Diop.